sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM tey nag seen émission gox bi di dalal Dembel Sow nekk euh, bokk moomeel bu commune bu mband monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ci li ñu nangule invitation bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. Euh, salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen fiyu di leen sant. Euh, di leen gërëm di kontaan ak invitation bi nga xam ne invité ngeen na mhm. ci rajo bi. jërëjëf tey xam nga ni Sénégal ab tiis la yeewoo ab génnub àdduna ki nga xam ni moom moo di euh, Thione Ballago Seck ci sama kàddu rek euh, ki nga xam ni moom moo di président groupe euh, promo consulting di Mbagnick Diop di jël ay kàddu njaale rek di ko seede ñi nga xam ni nag ñoom ñoo di ay famiyam waaye yow tey lan nga ñu mën a wax tey ci ki nga xam ni moom moo di Thione Ballago Seck. Sénégal ñàkk nañu ku mag. ñàkk nañu ko bëggoon senegal mhm. ñàkk nañu ko yeete woon askan Sénégal ñàkk nañu nit ki nga xam ne euh, lu baak moom moo nekkoon si gémmiñam mhm. gis nañu ay waaraati yi nga tam ne mu ngi doon waaraati si biir woyam mhm. euh, ndax am na benn woyam bi nga xam ne jàpp naa liggéey doomu jàmbur yaakaar yaakaar naa loolu am na kenn ku nekk euh, boo wéete ak yàlla Euh, am na woy Thione Seck boobu am na lu muy def si yow mm-hmm. euh, di nekkoon na nit ki nga xam ne man xamoon naa ko a jaaran mm-hmm. ku tuddoon Paco Paco Jackson Thiam mm-hmm. moo ñu présenté woon mu nekk nit ku baax nit ku jullite bëgg mbokkam amoon kati ambition amoon lu mu bëggoon loon senegal maa ngi ko jaale waa Sénégal ñëpp jaale ko nag sama karit Abou Diouba ndax artiste la sama karit kati dañuy ànd guddik picc di xam naa ne nitam la bëgg na ko maa ngi koy jaale ñoom Baba Maal ñoom Youssou ñoom Oumar Pène ak ñi ne groupe bi nga xam ne ñu ngi ko doon ànd ak moom maa ngi leen jaale ñoom ñëpp vraiment fi mu jëm nag ginaal fi mu jógee a barke rabbin alamin na suuf woyof si kawam nag vraiment nit ku baax di ko jàll itam président groupe promo consulting di Mbagnick Diop alors euh, monsieur le maire commune bu mbaan la ñuy waxtaanee ce que tey boo doon wax euh, fan la commune bu mbaan nekk xam nañ ni mi ngi nekk boor Richard Toll mën nga ñu waxal taarixu euh, commune bu Mbane waaw commune bu Mbane mu ngi nekk ci région de Saint-Louis département de Dagana mhm. arrondissement bi même muy Mbane mhm. euh, nekk commune bi nga xam ne dafa polariser ay yeneen commune yi nga xam ne seen lépp foofu lañ koy jële ci Mbane mhm. comme euh, Gaaya Bokkul euh, Ndombo ñoo ñëpp seen état civil presque Mbane la nekk donc Mbane commune bu yaatu commune bu mag la Eh, di kadi commune bi nga xam ne bu am maanaa commune bi nga xam ne nekk na dara si Sénégal ndax mhm. bu ñu wàccee keetu liggéey mhm. keetu usines yi nekk si Mbaan amul beneen eh, commune bi nga xam ne am na ko si mhm. biir Mbaan eh, ndax société boo dégg foofu mu percuté ne si biir Mbaan même bu fekkee ne usine am nekkul si biir Mbaan toolam nekk si ay biir Mbaan donc Mbaan nekk na commune bi nga xam ne commune bu mag di commune bu Euh, macha allah ñëpp ñoom ñoo ko bëgg te déggoon ngeen coow mbaan mhm. Mhm. mbaan tu mhm. lu tuuti li nekk foofu si càmm lu nekk foofu si mbéy lu nekk foofu si si ket ay euh, nit yi nga xam ne am nañu valeur euh, mbaan daal commune bu mag la moom mbaan monsieur le maire mbaan xëy na yaa ngi koy junj léegi ci sa biir kàddu ab commune la boo xam ne itam yaatu na lool tey mën nañ xam ci loo xam ne yow ba nga ñëwee tey Euh, ca diwaanu Mbaan ba tey am na loo xam ne mën nañ ko teg loo xam ne yow mun nga ko jëfee nga ko ci commune ba dañ koy dooree rek ci wàllum infrastructure yi maanaam jumtuwaay yi am na loo xam ne itam euh, jot nga ko fa def am na loo xam ne sooxe na lan nga ñu mën a wax tey ci loolu alhamdulilahi rabbil alamin pàcc boo mënti laal tey <laughs> mun naa la expliquer lan la ñu si jot def <laughs> ndax euh, man gis moo takkoon ma ñëw mbaan mhm. dama amoon programme mhm. man dum politisé mhm. man dama amoon li ma nam amoon li ma bëgg def mbaan loolu moo takkoon ma ñëw mbaan euh, man dum politisé de amuma kati karit aussi amum parti man li ma yor li ma ñor mooy askan bi li ma ñor mooy Sénégal euh, li ma ñor mooy sama diini Mm-hmm. alors léegi tey ci commune bu Mbane euh, gis nañ ni dañ ñu bëri dañ naan jafe-jafe yi ak ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum mairie bi tey ci wàllum santé foofu lañ koy jaar yi dooree coronavirus bi xam nañ ni ñëw na tey am na loo xam ne jot nga ko def ci commune bi lan la tey mun nga ko wax mbokk yi ñu mën ko déglu. waaw coronavirus bi euh, bu mu ñëwee mbaan kadi nag ñu xam ne carrément doole mbaan fi mu yem. Mm-hmm. si doole mbaan fi mu yem jéem nañu seet. Mm-hmm. ay programme yi nga teg yi ñu teg ba nga xam ne alhamdulilah am na ay jéego yi nga xam ne defoon nañu ko si si coronavirus bi. Mhm. ak jël ni woon nañu lu mot dix millions ñu yóbbu ko foofu jëloon nañu deux millions cinq cent ñu mhm. yóbbu ko si ay pour jàppale les commune bi si mhm. masque yi am na kadi ay euh, macha allah li ñu amul am nañu ay dëkkandoo mooy usines yi nekkoon foofu Euh, comme lu mel na CSS mhm. jàppale na ma effecté woon na ay écoles yi si projet ak affaire yooyu mhm. euh, ak euh, jàppale ñu si si lu bare mhm. vital jàppale nañu si lu bare si ceeb ak ay villages yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tourage des villages seen india def na comme noonu jënd nañ ay loo bu bare ñu jàppale population bi si affaire covid bi dañu ñoo ko dog Euh, Dolima mhm. def na même chose ak ñoom jàppale ne leen alcool jàppale leen ay max mhm. Euh, vraiment usines yi daal jàppale nañ la. ja usines yi nekk foofu. Mhm. dem nañu foofu sollicité nañu leen foofu. benn usine bu nekk foofu yëpp jàpp nañu si kori bi ni ñu waree. léegi askan wi foofu naka lañ doon dundee ak coronavirus bi dafa mel ni sensibilisation bi ñu ko doon woyee ñu ngi doon takk masque yi bés bu nekk ngir éviter jàngoro bi. ndax yaakaar naa fépp fu mu ginoon métti si noonu la ginoon métti ndax ñun dañu amoon foofu ay looma looma yi dañu leen mhm. nit yi amatuñu fi ñu doon jaay amatuñu dem bi dikk bi ñu dakkal ko mhm. euh, am na ñi nga xam ne ñu nekk si àll bi amatuñu woon moyen pour ñu mhm. am accès sax fi ñuy jinde euh, nekkoon njàkkare bu mag si yàlla rek moom moom mën a yor nitam moo xam ni mu leen yore woon si alhamdulilah bin alamin métti woon na lool si yàlla bi nga xam ne moom mooy defar lépp lu muy defar moom moo koy defar moom moo ñëw ko di sotti leen mhm. ba alhamdulillahi rabbil alamin mbos bi li ñu koy coow coow yëpp euh, man kawul foofu egsi kawul foofu mhm. percuté mhm. si population bi ndax ñëpp dañu yaakaaroon ba fekkee ne département Dagana wala Sénégal am na mbaan moom si fini boo fekkee ne mbaan moom foofu la ñu jaar kana euh, nekkaat beneen ki i mhm. si alhamdulilah bin alamin gis naa si nit yi fagaru mhm. ak euh, civilisation mhm. ak ñu euh, respecté geste barrière si yi nekk foofu ba tey mbas mi euh, alhamdulilah bin alamin ndax li dal say mbokk dal na la si vraiment ñu ngi si sant yàlla santkat yi ñi nga xam ne ñu ngi nekk foofu si post santé yi docteur yi médecins yi nga xam ne nekk nañ foofu di jàppale askan bi si siiw mhm. dinañ ñëw ci wàllum poste santé waaye ñu jeexalee ko ci mbas mi ak vaccination bi nga xam ni tey euh, ñëw na ci Sénégal am na ci ñoo xam ne commencé nañ tàmbali euh, vac vaccin bi commencé nañ ko jël ngir xool nu ñuy renalee jàngoro ji ndax yow monsieur le maire vac ñakku nga wala sa askan yaa ngi préparer pour ñu ñàkku ji ci wàllum vaccination maa ngi préparé pour ñu ñu vacciner ndax vaccin bi dafa am norme yi nga xam ne moom la jikkoon ñëwee mhm. ñu ngi kaaroon si norme boobu mhm. yaakaar naa incha allah poste santé yëpp mhm. daañu ko am de sensibiliser naa nit yi mhm. daañu ñàkku ji euh, de xam naa ne ndax loolu moo ñuy ñoŋal Euh, donc euh, suñu gan ba nga xam ne ñëwoon na mooy mm-hmm. corona depuis bi mu ñëwee mu ngi tàllal tànkam toog. Mm-hmm. dikkandoo la bañ dem bañ a dem. bañ a dem noonu tam préparé nañu naka la ñuy dikki ak moom. Mm-hmm. Ah, donc daañu ñàkku daañu kat di continuer. di ñaak nit yi. nañu nekk si li ñu nekkoon. léegi si jumtuwaay la ñuy waxtaanee ci wàllum euh, paj mi ci wàllum santé. Euh, gis nañ ni tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus ba mu ñëwee ñu bari dañu xaw a sooxe ci wàllum mpaj mi santé tey sa commune bu mbaan tey yan jéego nga def foofu ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum mpaj mi. alam rabin alamin poste santé yëpp jàppale nañu leen si li ñu leen war a jàppale. Mhm. Euh, de gis naa ne ñu ngi góor góorlu mhm. ñàkkul am ay manquement yi nga xam ne am nañu ko. Mhm. si lu mel na Thermo Place ak yu bare daal. tey ba nga jëlee mairie bi ba tey yan yan jéego nga def ci wàllum sante foofu ci commune bi. alhamdulilah rabbil alamin kaw na takku loolu dañ koy liir. Mhm. du li ñu li may mën a wax ne nangam ak nangam rek. ndax mhm. tabax nañ foofu ay case santé. Mhm. Euh, équipé nañ foofu ay case santé. Euh, ñu ngi nekk si kadi ay projet def si ay jéego yu bare yaakaar naa bind nañu ko tënk naa ko. te dafa am li nga xam ne bu ñu toppee si lii mun na am euh, li ñu li bëgg kam sax si réaliser du ñu du mën a kecc ci erreur. léegi jukkil ñu si benn rek. ay ay ponk euh, am na ay ponk yu bare. Mhm. amul ndax euh, pour l'instant. Mhm. commune bu Mbane ñaata centre de santé ñoo fi nekk. dinañ ñëw jël ci mbokk mi léegi léegi rek ci nga xam ne moom moo jëm ci émission commune bu Mbane tey ñaata ponk poste santé ñoo fa nekk ci wàll woowu te yoo xam ne yow tey defar nga ko. poste na santé euh, yu ñu defar foofu kaw na takku. bi mu koy def. kam mhm. naa ne du li nga xam ne mun naa ko toog rek mu wax la lii ak lii bu mu nekkoon ñaar wala ñett. Mhm. mun naa la wax nangam ak nangam isi dem ko bind si kayit. Mhm. teg ko bu mm-hmm. fekkee ne bëgg nga ko kam nga seet ko foofu mm-hmm. daa nga kam ne comme lépp nga situé seen tur mm-hmm. nga situé ban date la ñu ko defoon ak yooyu yëpp def naa ko lépp amul lu ma parewul lii li dem si santé bi def ko kaalis bi si natt dugg mhm. walla ni si li si dugg mhm. ak kaalis si sante bi ak yooyu yëpp mhm. boo jëlee benn paas mu ngi foofu koolal loolu yëpp daa leen mën a faram fàcce leen poste nangam mu ngi tagaw nangam nangam million la ñu si def poste nangam ñu ngi koy commencé nangam la ñu si def poste nangam lii la lii la yooyu yëpp daa ko gis foofu di yaakaar naa euh, si suñu programme bokka ah. léegi ci ci ci ci wàll wi léegi kon mën nañ jàpp ni ay avancé ay pàcc yu am solo am na ci ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum santé bi. loolu macha allah. Mhm. donc euh, am nañu équipé nañu def nañu ay sant poste santé. Mhm. équipé nañu leen. Mhm. ñu ngi leen tagaw ak si seen besoin. Euh, am nañu ay ambulance euh, daaw loon bu nekk am nañu. macha allah santé bi li ñu si def kaw na takku tuuti li ñuy tënk si si li ñuy def rek mooy munul munuma ko liir ndax bare na yaakaar naa paas yi ma bind mhm. indi leen fii mhm. euh, pour si rajo bi boo fekkee ne mun ngeen ko liir mhm. ngeen liiral ko population bi amul li nga xam ne du si nekk dina nekk vrai ou faux yaakaar naa nit yi daañu si mën a def débattre ndax man li ma gënoon soxla avant ñu ubbi téléphone yi ñu ngi wax. Mhm. ñu continuer après nañ ko denc. voilà ñu ñu kam mhm. lan la ñu def si biir mbaan. Mhm. léegi yaa ngi ko doon wax ci wàllum électricité euh, li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum ANER ak jumtuwaay yi nga xam ni euh, def na ko foofu ca euh, solo mban be ak Beli Namari donc ay dëkk la yoo xam ne courant ñàkkoon na fa waa léegi am na fa. ñu ngi foofu ñu ngi foofu dafa nekk si cours pare nañ ñëw nañu def nañ installation bi am nañ seen délibération yi. war nañ taxawal loolu. aussi mhm. am na ay dëkk yi nga xam ne dañu leen te di lu mel na euh, mhm. bare na am na li nga xam ne kay am nañu ay bénéfice si si si mhm. lampadaire yi. yooyu yëpp benn naa ko foofu. Thiago Temey euh, Thiago. Temey Lewa. Euh, Mbaan. sanden jakaay yaa ngi dégg mhm. euh, njolofu noonu mhm. loolu beneen kii la mhm. benn projet la bi nga xam ne moom moo yóbbu beeli nammaari saare laamu njolofun yulluur ñaasante euh, euh, njalbanaaɓe beeli nammaari donc ñooñu ñoom ñoo programme bi nga xam ne ñu ngi tegu. Mhm. ñëw nañu waxtaan nañu ba mhm. teg nañu dem nañu foofu. Mhm. kooku système solaire. Euh, léegi ci ci ci ci wàllum mairie bi parce que gis nañ li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum extension réseau d'eau bi maanaam ci wàllum ndox mi. am na ay koppar gi ngeen ci dugal lu toll ci wàllum vingt quatre millions ndax tey am na ay jéego ci wàllu wi ni mel. dañ jikkoon dugal cinquante million jotoo da fas yi ni mu nekkee. dafa am li nga xam ne bu fekkee ne programme mairie bi la. Euh, jëloon nañ cinquante millions ñu def ko ci ci raccordement mhm. euh, jëlaat euh, vingt quatre vingt cinq million mhm. defaat ko mu nekk soixante quinze million mhm. bi nga xam ne def nañu ko pour dëkk yi mun a am brasement d'eau loolu bind nañ toll def nañu ko am na li nga xam ne macha allah bi tuyau bu ni quatorze kilomètres dem na te ñu ngi bugg dem gaddu haay sàmb Euh, ñu ngi def nañu raccordement pàate pàcc yëpp. Mhm. Euh, ñu ngi am ay programme yi nga xam ne ñu ngi koy yóbbu be sam-sam. Mhm. Euh, am na ay programme yi nga xam ne ay dëkk ay for yeneen forage yi nga xam ne mun nañu leen di. Mhm. dindil ay tigo. ñu dem yooyu yëpp. def nañu ko am na ñu nga xam ne. ñu ngi koy continuer di di ko di liggéey. léegi ci wàllum tabaxu wàllum parc vaccination bu ñuy wax bel Euh, euh, yan jéego nga ci def itam foofu. parc vaccination yi am na ay parc de vaccination yu ñu def foofu yu pare. ñu mhm. ngi leen bind bari nañu. Mhm. am na ay parc vaccination yi nga xam ne ñu ngi nekk ak court mooy. Euh, mhm. parc vaccination bi nga xam ne jé engagé nañu ko mun na am léegi seen fi tax na Belil Belil Massos ak Birame Bisna Birame Sokone ñooñu am nañu parc vaccination yi nga xam ne am nañu ko ak programme yi nga xam ne indil nañu ay parc vaccination mhm. yi nga xam ni ñu koy def mhm. si yaakaar naa loolu yëpp mhm. dama ko tënk si kayit bu doon euh, ni ma soxloon da ngay wax mbaan waaw léegi ci wàllum extension bi ci wàllum euh, réseau bi ci euh, bi délégation protection sociale bu ministère développement communautaire ci lu jëm ci wàllum électrification am na ay villages yoo xam ne itam réseau bi moom leen tënk ak Senelec mhm. muy mel ni caago ak Temey caago Mbaan ak euh, Mbaan Alayana ak euh, yooyu ay dëkk la yoo xam ne. Mhm. Euh, ñoom ñooñu Senelec. Mhm. moom moo leen di contrôler. Mhm. yokku leen ay genre keetu lampadaire. ak ay li nga xam ne léegi dëkk bi dafa leer kon foofu. dëpp dëkk bi am na ñu am kii am na ay dëkk yi nga xam ne ñoo électricité dëkk bi bi ñu ñëwee. ci programme l'état la bokk. yaa ngi dégg li ma la bëgg wax foofu lépp loo dégg foofu wala lépp loo gis foofu ci programme réalisation bi nga xam ne diggante 2004 ak 2021 li ñu fi li ñu liy def loolu tegal tinkal foofu mhm. yaa ngi deg mhm. donc loolu am na ay programme yi nga xam ne yeneen programme la yi nga xam ne mu ngi nekk si programme di yooyu yëpp pare na mhm. pour ñu def ko gis nañ itam ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, fonds appui mooy euh, bi nga xam ne moo di SAED jox na leen ko ci wàll yu ni mel donc gis nañ ni ay euh, yenn état forage yi nga xam ni yu bëri taxawal ngeen ko euh, moom moo jëm ci forage euh, Beli Namari ak yeneen yoo xam ne itam mun nañ la bàyyi nga lim ko forage yi tey am na yi ngeen fi ngeen di ngeen def mën nga jukki ci forage yi nga xam ne tey defar ngeen ko foofu ci wàllu waaw président ba mu ñëwee mhm. forage Beli Namari mhm. si programme l'État la bokk mhm. forage Mbeelooñ forage Bouteyni forage Wuro Ifra forage Jamjaay rek forage euh, Gaddu Abbas mhm. forage Yulluur mhm. euh, forage Mapuuji yooyu de ñu nekk ay forage yi nga xam ne ñun ñoo ko def mhm. bokkul ak appui bi nga xam ne nekkat na si biir forage yooyu ay moteur yu baan ay moteur douze millions ay moteur sept millions ay pompe trois millions cinq cent ay euh, yooyu ak appui ak ñeneen ñi nga xam ne def mm-hmm. nañu ko ci biir mbaan mm-hmm. yëpp tënk na ko ci ay kay te fan yi yëpp yaa ngi fi doon dem ci euh, ci li xam ne moom moo jëm ci wàllum forage bi itam waaw de mm-hmm. maa ngi continuer di wut ay forage ndax man sans problème am mbaan mooy ndox ah, ndox ndox rek ndax forage yooyu jot mbaan yëpp kaajul satisfait mbaan yaa ngi maanaam des na waaw des na am nañu programme bi ñu def programme deux mille vingt et deux mille vingt trois mhm. euh, am nañu ay programme forage yi nga xam ne teg nañu ko mhm. jok nañu ko maa ngi si dog pour mhm. ma am si dara de am na ay dëkk yi nga xam ne situé nañu leen foofu yeneen forage yu bokkul ak forage yooyu maa ngi si doon dow pour que démb man ak ministère dembu démb si dembu si euh, ver midi man ak Serigne mbay Thiam ñoo toog ministère hydraulique yaa ngi mm-hmm. am na li nga xam ne mm-hmm. euh, jéego yi ma doon dog foofu ak li ma doon lijjanti foofu mm-hmm. am na li nga xam ne comme jeune paate bajj dafa amoon ay raccordement yu amoon foofu amoon problème ay ndok affaire yooyu yaakaar naa si biir semaine bi dañu koy tijji mhm. de démb ministère bi moo ma encordé loolu kadi maa ngi koy félicité mhm. takawaay bi mu takaw démb mhm. ak wakak euh, nitam wakak waa SD wak service am jël sama programme def ko programme bu kii maa ngi koy sant di ko gërëm di sant yeneen ministère yi nga xam ne ñoom ñëpp sollicité naa leen woon ministère yi jotoon fi nekk Euh, ñu jàppale ma si ba mu toll fi mu toll. Mhm. ak euh, financement SAED bi nga xam ne SAED ndo ndomba SAED. Mhm. Euh, delta boobu li mu leen financé si ay milliards. Mhm. ak neuf cent millions yi nga xam ne fi financé woon nañu ko jigéen yi nga xam ne ñu ngi foofu. Mhm. ak waa PDIDAS li nga xam ne indi nañu ko foofu ay milliar trois milliards et quelque. Mhm. te trois milliards et li nga xam ne indi nañu ko ak ay personnes yi nga xam ne. financé nañu leen te ñu ngi créé foofu ay emploi yaa ngi deg ak bourse bi nga xam ne. sept cent bénéficiaires yi nga xam ne ñu ngi bénéficier si ay bourse ak. Euh, mënuma ko ni ma koy. maanaam bëri na daal li nga bëri na bëri bi nga xam ne loolu li may bind ndax li may wax ni damay wax rek di type ay latrines yi nga xam ne ay trente nangam kilomètres. Mhm. si ay latrines. Mhm. Euh, ay hôtel de ville. Mhm. ay brigade gendarmerie bi ñu tabax. ay dinañ ci euh, ñëw dinañ ci ñëw. voilà léegi euh, ci ci ci ci mairie bi commune bu Mbane xam nañ ni yow ci commune bi mairie Mbane yow nekkoo biir Mbane mairie bi dafa nekk Richard Toll ay travaux la yu nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey. tey liggéey googu noonu tey fan la toll. ci ci wàllum liggéey gi. voilà taraaw boobu yaakaar naa pare na. Mhm. xam nga mbaan dafa am mairie. Mhm. mairie bi man bama ma soog a toog rek dama jël état civil bi ak mairie bi yëpp mu ñibbi mbaan. parce mhm. insécurité bi mu nekkoon. ak ñàkkoon mairie bi amul woon moyen. man délégation spéciale laa fekk foofu. fonctionnement cinq millions laa fekkoon foofu. tey léegi foofu ñaata la toll tey. macha allah Mhm. dem nañu ba ay trois cent millions. ak mhm. nangam nag mhm. ci budget léegi yaakaar naa. Euh, li ñu def. te suñu budget ak yooyu yëpp. nun man loolu du du sans problème. lan mooy sam man li may dégg si mbaan mhm. yaakaar naa milliards mhm. yu ñu indi mbaan wakum waku bid léegi nañ continuer ci ci ci ci travaux yi liggéey yi ci ci mairie bi tey fan la toll waa mbaan mën a déglu tey état boobu mhm. dama dellu bu ma demee ba foofu amuñu gardien amuñu mairie bi mënul woon fay gardien nekkoon insécurité loolu moom moo taxoon Euh, état civil bi delluwaat woon Richard Toll mhm. bu mu delluwaatee Richard Toll mu nekk ci côté inspecti euh, bi mhm. ndax amoon na brigade amoon na ay gendarme yi nekkoon foofu mhm. amoon na ay sécurité yi nekkoon foofu loolu moom moo takoon ma indiwaat euh, état civil bi Richard Toll et si léegi président bu mu ñëwee mbaan ñu wakk norme mbaan ñu wakk problème insécurité bi ak loolu mu may ñu hôtel de ville may ñu brigade gendarmerie. Mhm. may euh, mhm. euh, euh, ñu. préfecture donc ñu alhamdulilah bin alamin bureau foncier bi pare na. Mhm. tabax nañu ko ba pare na. de yaakaar naa kay di lépp pare na peinture moo si des ak ay. finition lañ ko inauguré waa Mbali di inauguré yaakaar naa alhamdulilah bin alamin si deux mille vingt bi incha allah. daañu ko inauguré. kon donc mën nga dalal xel nag mois passé dem naa toog naa ba gis naa ñi nga xam ne ñu ngi doon ñëw. def nañu si jéegéen nun ak gouverneur mhm. région de Saint-Louis mhm. euh, def nañu si jéego waxtaan nañu ba kooku nee ne amul benn problème dañu def tout tout tout tout pour ñu mhm. def euh, ñu ñu ñu ñu àggale liggéey bi yaa ngi dégg uh-huh. parce que ñu ci bari dañ naan askan wi ñoom bu ñu doon xëy di dem di wuti extrait dañ doon euh, fay xaalis bu bari laata ñuy yegg Richard Toll te ñoom commune bi ci seen dëkk la nekk waaye mënuñu woon jote loolu donc mun nga dalal seen xel ni leen mairie bi dina pare dina ñibbi si waat mbaan loolu incha allah euh, xanaa ku bëgg wax rek mhm. est ce que ku jógu jóge mbaan te jëm Richard Toll wala jóge Richard Toll jëm mbaan mhm. boo ñëwee da ngay laaj lii laan la lii lan la mhm. parce que ñu bëri ñoo fa nekkoon oh, non lii li ma lay wax ni soogul lu ñuy weddi wala li ma leen di wax dama la wax ni ku judd nekk si biir mbaan ngay kay dem Richard Toll waa nga jóg Richard dem mbaan mhm. yaakaar naa li ngay wax nii ndax pare na wala parewul ñoom ñoo ko gën a kam mm. loolu warul bokk tey si déviation mhm. ndax loolu pare na mhm. yaa ngi dégg tabak nañu ko yaakaar naa peinture moo si des ak ay finition te incha allah daañu ko def de am nañu folo bi am nañu fayda bi te ñu ngi si topp guddeeg bëccëg e, nelawuñu si loolu léegi sànq sa biir wax yaa ngi ne euh, budget bu maan da nga ko fekkoon ci juróomi million léegi yóbbu nga ko ci trois cent millions ndax tey euh, commune bi li mu soxla yëpp euh, ñu ngi ciy gis seen bopp ñoom commune bi waa askan wi. xam nga commune bi mënul gis ñoo ngi jéem. Mhm. ndax li nga xam ne li ñu jot def foofu. Mhm. defuñu wala man li ma kalaat def mbaan. Mhm. defuma génne wàllu génne wàllu si li nga xam ne def naa ko si. si juróom benn at bi ñu yu ñu toog yi ndax mbaan dafa amoon fu mu nekkoon am fu mu nekk tey mhm. képp ku wakal yàlla kam mhm. na mbaan am na fu mu ko jëlee am na fi ma ko jëlee mhm. am na fi mu koy indi tey foo ko indi tey fan la ak lan ngay dëgmal pour suba alhamdulilah bin alamin am naa programme deux mille vingt et un ba deux mille vingt trois naa ko li ma soxla si parc vaccination li may collecteur ay euh, euh, ay euh, ay stade football ak li may def collecteur ay école yi mhm. ak collecture yi may collecture euh, case de santé yi mhm. ak logement yi may yokk mhm. ak programme euh, poste santé Thiago bi nga xam ne bëgg naa ko yopp mu ngi nekk euh, cent dix millions de commencé nañu ko de def nañu kii bi ba wote nañu ko ba commencé nañu ko am na ay ñi nga xam ne ñu ngi koy gagné ñu ngi pare pour liggéey ko donc ay jéego am solo yaa ngi fay def ci commune bi alhamdulilah bin alamin maa ngi sant yàlla ndax man Euh, bu ma ñëwee foofu du SAED du DER du FRAPS du PDC. Mhm. du ñoo ñëpp contacté naa leen. Mhm. te bu ñu ñëwee kadi damay dem di contacté leen toog ak ñoom indi sama des indi sama programme. Mhm. ba ma toogee semaine gisuma leen dégguma leen damay leen waxaat ba ma ñëwul. mën na am ñu bari ñu ngi wax ne voilà monsieur maire <laughs> mu ngi dakaar man nag li may lijjante mbaan du mbaan la nekk Dakar la nekk <laughs> ndax fii la ministère yi nekk <laughs> fii la société yi nekk programme bi ñuy sokkee suufu lépp lu ñu fi gis fii lay fii lay jóge donc fii lay joge dem mbaan donc alhamdulilah bin alamin euh, maa ngi si dog guddeeg bëccëg mhm. nelawuma si seen ay mbir di mhm. yaakaar na kat ñi nekk mbaan mhm. di jàmbat monsieur le maire euh, kenn du ko jis yaakaar naa amul benn signature bu tardé foofu neen na mi signature monsieur le maire moo ko tardel wala programme monsieur le maire moo ko tardel wala société ñëw na fi mënuñu d' accord ak maire lu tax mënuñu d' accord ak maire maire bi kenn gisu ko wala kenn dégg ko léegi ñu jëm xam nga mbaan itam euh, benn dëkk la boo xam ne itam dafa amoon solo lool ci taarix ci wàllum suuf tey wax nga ko euh, Mbane ku ne xam na ni dégg na ay problème mu Mbane ci wàllum suuf ndax tey mën nañ jàpp ni commune ba léegi amul benn léegi coowal suuf bu fa am. alhamdulilah rabbil alamin depuis bu mu bu ñu ñëwee. Hmm. ñëpp déggoon nañu problème Mbane. waaw suuf suuf. ndax noonu suñ suuf moo ñu indil problème. Hmm. dañu am ndox bu nekk am suuf bu baax. boo lépp loo si teg mu sakk. Hmm. ñi ñu ëpp woon doole ëpp ñu kam-kam ëpp ñu ful ëpp ñu fayda ñëw foofu akimoo suuf bi. man bi ñu ñëwee foofu jéego bi ma jëkk def mooy keek ak huit mille hectares bi nga xam ne tegu woon na foofu si seen kaw kenn mënu si woon euh, def dara kenn mënu si woon nelew mooy yóbbu boromam ñu waxtaan ñu dem ba ñu jël ko ñu wax leen ñu dalal kel action ni dem leen ngeen tëdd mhm. yaa ngi dégg mhm. euh, demoon naa génn woon naa si télé yi population bi tiitoon na defoon na lépp si alhamdulilah bin alamin am naa jéego yu mag yi ma si def mhm. su euh, société rek bu mel na seen injaate mhm. de mu nekk si société valeur société bi nga xam ne am na doole am na capacité mhm. ba ma ñëwee dama fekkoon ñu am foofu de libération bu cinq mille hectares mhm. ñu commencé woon liggéey trois cent hectares kese ba ma ñëwee foofu dama leen bind mise à demeure li ngeen jël si mbaan dafa ëpp di ngeen koy wàññi yàlla def ba mu waxtaanee ak ñoom jël nañu si ñoom trois mille cinq cent hectares des trois mille cinq cent hectare bi li tax ñu dese mille cinq cent hectares bi dañu ma wax ne carrément noonu dañu teg résultat de dañu pare pour liggéey te mhm. bu ñu demee ba ñu waaj loolu ba ma dem wàññi ba pare ma seet fi li ma wàññi bi yëpp dafa am ay village ak ay dëkk yi nga xam ne desoon na si biir mhm. yooyu man maa si topp ba ñu négocier ak seen india ba mu leen tabakal ay kër boo demee foofu valeur un milliard deux cent mhm. defal nañu ko population yi nga xam ne jëlal nañu leen foofu ñu yóbbu leen feneen donc nun am nañu ay jéego yi nga xam ne man ak sama ay équipe sama ay conseil mhm. ak sama ay nit yu maag mhm. ak ay sëriñ yi nekk foofu ndax man damay associé ak ñëpp mhm. ndax man depuis bi may ñëwee foofu amul benn programme bi nga xam ne jël nañu ko ñu teg ko si kaw suuf si kilifa ñi nekk foofu ngànk suuf ñu yëguñu ko ndax kilifa yi mooy chef de village yi chef de village yi lépp lu ñu yëkkati ñu bugg ko indi si gox wala ñu bugg ko waxtaanee chef de village yi ñoom ñooy jëkk takaw ba ñu suude wuusi loolu ñu xam ne carrément li développement la mhm. li mën na nekk mhm. ndax ñaar ñoo mën a yàkk wak mhm. ku gis lu mën a nekk neen mënul nekk ak ku gis lu mënul nekk neen lii mënul nekk voilà donc mais tey euh, ci commune bi mënul leen fa def benn délibération boo xam ne ci wàllum suuf te conseil bi àndu ci parce que looloo indi problème bi voilà léegi nun suñu conseil ak suñu population ñoom ñooy ànd di liggéey fu mu nekk nii léegi defal naa lu mot deux mille soixante régulariser ay tool mhm. yi nga xam ne ay doomaanu mbaan yi nga xam ne amuñu woon papier amuñu woon ñu ngi yoroon seen suuf mhm. amuñu woon papier am na régulariser yi nga xam ne def naa ko ak appui PDIDAS mhm. ñu dem ñu seet mbaan képp ki nga xam ne yaa ngi doon béy nawet ñu daggal la kayit ñu nattal la sa tool ñu délimité la ñu xam ne carrément lii lii la di yor nañu programme boo fekkee ne yor nga ko di gis naa ne di ñu ngi doon liggéey mm-hmm. et si mënuñu woon am si seen tool yi dara mm-hmm. ndax da doon liggéey doo ko ñàkk mm-hmm. am doo am collecteur doo am semence doo am euh, li nga ay produit yi nga xam ne dina la accompagner doo am def doo am engrais doo def li nga xam ne war na si tool bi yow yaay sonn nit ki et si du la amal njëriñ dem nañu nag ba jël nañu mbaan ñu organiser ñu dekk ay santar ñu def douze santar yi nga xam ne ñëpp ñu mën a ànd ànd lépp li nga xam ne soxla nañu ko ñu ñu waxtaan si ak ñooñu ñi nga xam ne ñoom ñoo ak ñoo centre yi mm-hmm. Euh, délibération ak yu mel noonu yëpp dama leen associé man mhm. depuis bi ma ñëwee loolu mooy sama politique mhm. loolu laa bëggoon man ndax loolu la amul woon bu jëkk mhm. noonu dañ doon toog rek ba ñu gis ay garab ñu ngi daanu kenn du ko yegg nee na diw lañ ko amul problème non non alhamdulilah ci wàllu suuf amul benn problème non non wàllu suuf amul benn problème naka naka nga trouver consensus bi nga xam ni tey am nga ko si sa biir commune nga lépp loo xam ne da nga ko fay def danga koy diisoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi yaa ngi koy wax léegi ndax boo fay jël initiative faaw nga d'accord ci ñi nga xam ne ñoo di chef de village yi ci wàllum suuf tey naka la dëkk bi dalee tey ci wàllum suuf. alhamdulilah rabbil alamin waa Mbaan yaakaar naa loolu lañu kaaroon si seen njiit ndax waa Mbaan kenn ku nekk moom moom munoon demal boppam. Hmm. ndax waa waa Mbaan ay kilifa lañu. ay nit yu am kam-kam ndax nit yu ñu doon nit ñi nga xam ne dañu tàmm ñu ngi leen sollicité. Hmm. ndax suuf suñu mel. yaa ngi dégg mm-hmm. yaakaar naa kilifa yi nga xam ne jotoon nañ fu nekk président communauté rurale mm-hmm. ak euh, ñoo ñëpp lii leen mooy li leen doon yéene mooy li si gis si mbaan mhm. ci suñu woon solution naka lañu ñu mën a def mhm. ba mbaan boolu ñu mën a dëkku mhm. ay bailleur yi nga xam ne daañu jóge si àll wala ay gan yi nga xam ne ñu ngi ñëw si dëkk bi ñu ñàkk si gis suñu bopp yaakaar naa loolu moo nekkoon seen problème de léegi yaakaar naa équipe bu tegu mbaan tey am na solution bi nga xam ne teg na ko képp ku ñëw doomoon mbaan bu mu ñëwee dootul sonn léegi am na ay projet yi nga xam ni dëgmal nga ko wala yaa ngi ci kawam yoo xam ne bëgg nga ko indil waa Mbane waa Mbane mën ci gis seen bopp tey yan yan projet nga bëgg a indil waa Mbane. léegi pour l'instant nii ñu ngi am taxawal mbaan am société boppam see social bi nekk Mbane. maanaam société ci biir mbaan si société biir Mbane fekk doomu mbaan ak ñi nga xam ne déggal nañu leen. Mhm. bokk nañ gis bokk nañ programme. képp gisi bëgg na société boobu incha allah daañu ko teg di commencé nañu ko. Mhm. Euh, de ces villages yi ñoom ñoo si liggéey. Mhm. Euh, notable yi nekk foofu ñoom ñoo si liggéey de société boobu création société bi presque euh, lundi passé jéemoon nañu racontre ak euh, chef du village yi ak chef de centre yi mm-hmm. toogoon nañu ba décidé woon nañu benn bureau bi nga xam ne bureau création mhm. société bi mhm. ba loolu ñu ngi si donc notaire ñëwoon na keroog mhm. seen huissier ñëwoon na avocat défendre ñëwoon procureur yi nga xam ne ay nit droit ñëwoon nañu si réunion boobu ba yaakaar naa société boobu ba fekkee takwal nañu ko képp ki nga xam ne amoon nga délibération tool mhm. daa nga mën a am fi nga jëlee mhm. pour nga liggéey garantie bi nga xam ne daa nga ko mën a def mhm. ku amoon ay nagam de mënatu nawet bi noor bi dem bi mu pankite si ñoom mën a jaay dara dina fekk nag yi amatuñu valeur daa nga mën a am fi nga jëlee dara nga nga nga sàmmee ko sa nag ba loolu weesoo après nga dellu di yaakaar na kati loolu doomu mbaan yëpp ñoom ñoo ko moom ak doomu département Dagana ak doomu Sénégal ñëpp ñi nga xam ne mun na ñu ñëw ñu bokk société bi société bi tagawal nañu ko bureau général bi nag sugu ñu ko collecté nag léegi bu ñu demee ba si biir dina am ay collecté yi nga xam ne borom xam-xam yi ñoom ñoo ko mën a ŋànk man nag am naa peke bi lay bi première lay bi man maa ko tourné mhm. lem ko li si des na pour ñu laata yaatal lay bi wala pour ñëpp bokku si ñoom doomu mban ñoom ñoo si dëkkati maa ngi dëkkati Euh, par fii dekk si euh, doomu mbaan yëpp mhm. nañu kaw ñu nañu ñëw mhm. ñu seet du politique du dara mhm. amul ki nga xam ne di man moom ma si dara idée bi nag ak sama moyen bi nga xam ne maa ngi si doon doo ak yëpp pour organiser commune bi loolu man maa leen ko defal man maa leen ko may notaire yi ñu engage juge bi ñu engagé parquet bi ñu engagé ñu tegu si yoon pour ma jàppale leen ba ngeen tegu si yoon ngeen demal seen bopp ngeen diriger seen bopp ngeen présider seen bopp ngeen seet lan moo nekk si seen biir mbaan mhm. képp ki nga xam ne yaa ngi woote tey doomu mbaan nga bugg nga mbaan dem si kanam mhm. ñu ñëw jàpp ci liggéey nañu ñëw ñu jàpp si liggéey bi ñu mhm. jël politique bi ñu teg à côté ndax nun ñu de dem sa keneen ki ok léegi laata ñuy euh, ubbi euh, serveur bi rek dañuy waxtaanee ci infrastructure ñu tëjee foofu ci wàllum euh, stade juñu nga ko léegi léegi ndax tey fan nga ci toll yi itam mën a euh, di euh, bànneexu bu baax itam parce que ñu bëri dañ naan amuñu liggéey foofu mais fan nga tollu tey ci stade bi. gis nga man dama jikkee sama lépp dem ko jikkee si xale yi. Mhm. ndax sport moom mooy yóbbu réew kanam. Mhm. ñi nekk ci jeunesse bii di xam ne ñoom la ñu tegal programme tey. Mhm. ñii di football nekk si terrain yii di dow xale yooyu yaakaar naa bu fekkee ubbi nañu amul du seen mbir du. fubalkat du dara ki amul kenn ki nga xam ne mus na ma sollicité mhm. si seen programme ma néewal ko doole mhm. man kamuma loolu ndax man mhm. dama fonk kale dama fonk kale dama fonk ka di jeunesse dama fonk sport dama fonk ay nit yi nga xam ne ñu ngi ñëw de ñoom la ñu yoral lu ñu yor ndax suñu doom rek la ñu yoral suñu yor wala suñu jërbaat ndax lépp loo gis passé na bon donc euh, man bi ma jëkk a ñëw fonctionnement bag naa la cinq millions la ñu amoon bu ñu amee suñu fonds de concours ak fonds de dotation mhm. ak appui dañu ko dindi ñu yóbbu ko ak appui bi nga xam ne kii appui woon nañu ko mhm. trente million mhm. mu yóbbu quinze millions bi mu yóbbu ko stat mbaan pour ñu clôturer ko tey fan nga toll foofu pare na aménagement bi pare nañu si ba ñu ngi si football léegi clôturer nañu stade bi clôturer nañu stade bi eh, yaakaar naa loolu musul am si biir Mbane yaa ko fa indi man maa ko def musa def première man maa ko mosu def foofu. ok mm-hmm. am na ay jàmbaar yi nga xam ne. Mm-hmm. comme ñoom Magatte Wade mm-hmm. ñu ngi may jàppale si liggéey dëkk bi. ndax am na ay salle de yi nga xam ne teg nañu ko foofu. ak boo ñëwee foofu daal vraiment ñu ngi jéem a dëkk bi te ñoo ngi at yi si gannaaw tuuti rek képp ku ñëw mbaan village. xam ne changement am na dana kam changement am na. Euh, loolu mooy. Euh, li nga xam ne mooy suñu ferti ok ndaw ñi ci wàllu liggéey mbaan ak ni mu yaatoo ni mu war a amee koppar pour ndaw ñi mun ci am ay xëy lu tax xëy bi yombul foofu xëy bi euh, mbaan dafa am ni mu niroo mhm. ndax usines yi nekk mbaan mhm. seen mi india mu ngi foofu mhm. lu nekk seen india bari na daal bari na lu lu nekk si euh, lu jëm si CSS bari nañu ñi liggéey si seen tool bari nañu. Mhm. ñi liggéey si seen activité nag. Mhm. ah pour jula yi ak yooyu macha allah. Mhm. ñu ngi liggéey. li ci des lii nag. emploi li ñu li soxla. mooy cadre yi nga xam ne mun man itam soxla naa ko ci biir mbaan. kaw na des. ndax man soxla naa samay doom yi ma dégg leen. ay directeur société mhm. ñu nekk ndax cadre la ñu jàng nañu bi ñu am ay niveau mhm. ñi mun nañ nekk préfet ñi mhm. mun nañ nekk sous-préfet ñi mun nañ nekk lu bare loolu manqué na ma yaa ngi koy encadré waaye yaa ngi dégg si financement yi ñuy créer si biir mbaan comme tey li muy def ay ménages yu mu li mu financé Sandent ah ak lu mu financé Sengu Jéeri ak lu mu financé mbaan ak lu muy sina sinaate Temey eh, Leba loolu dana créer ay emploi de en ah, delta Thiago Ndombo mhm. milliards yu bari la ñu si def mhm. offre jigéen yi nga xam ne neuf cent millions la ñu def bali del dégg nañu ay deux milliards na nga na chiffre yooyu yëpp mhm. li ma lay wax ni mu ñu ngi koy bend tënk nañu ko jël naa ko fu ver ak programme bu munti dugg si man dem dañu may wax ni programme nag nag man ma koy défendre bu ma ko défendre daañu ma jox chiffre yi tiwr yëpp mun naa la ko wax képp ki nga xam ne laaj na ma tey mhm. nangam lan la ñu si def si kaalis mhm. boo ko seetee foofu mu ngi foofu nant la ñu war def si stade mhm. football xam naa li ma def si santé kam nañu li ñu def si si kon kon kon bu ñu la déggee mbaan mu ngi ci yoonu émergence non ah, macha allah tey mbaan mu ngi si yoonu émergence si dama la wax nag dama man demay commencé mbaan dafa amoon dafa manqué woon lu ëpp depuis ta Ablaye Wade Abdou depuis temps Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade mhm. presque quatre forages si mhm. àll bi loolu lan lay mun lan lay mun tey tey forage yi yokku na quoi yi yokku na yokku bi nga xam ne mhm. yaakaar naa ñëpp daañu béy yaakaar naa ñëpp daañu sàmm yaakaar naa kadi mbaan tranquillité mbaan dana mën a yokku léegi ñu ubbi serveur bi 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 yéen itam mun ngeen dugg bokk ci émission bi euh, ñu ngeen bu ko defee rek ngeen mën a waxtaan ak euh, seen maire muy waa commune bu Mbane itam ñu ngi ñuy déglu saa si tembe alors tey monsieur le maire kon tey euh, Mbane mi ngi ci yoonu émergence mais est-ce que gisoo ni tey yaa ngi ci yoonu utaat deuxième mandat ndaxam tey da nga jàpp ni bilan bi nga tënk waa Mbane pareeguñ pour bu pour tàqalikoog yow. waaw léegi euh, maa ngi nuyu waa Mbane yëpp. Mhm. donc ubbi nga serveur bi mun am léegi mu wax ak sa yi. Mhm. maa ngi leen nuyu di leen sant que di ziare suñu sëriñ yi nga xam ne nekk nañu si biir département Dagana. Mhm. ak autorités yi nekk foofu maa ngi kat di saluer. programme président de la république ndax vraiment euh, doom bu fekkee ne fecca na fecc rafet yaakaar naa yaay moo jàpp si mbagga bi. donc euh, nekk na mhm. li nga xam ne mhm. vraiment mhm. Euh, maa ngi ko saluer ndax man li ma jot fii wàkk ak lépp lu ñu jot fii def moo ma si jàppale te yàlla def ma def ko ñu jël kooku salaamaaleykum waaw ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi tur bi ak foo ñuy woowee waaw tur bi nekk mun naa ko laaj maa ngi woote fii ci communo Mbane commune Mbane waaw bisimilah ñu ngi lay dégg waaw di rafetlu waxtaan bi nga xamante ni suñu maire mi ngi foofu di ko waxtaan jërëjëf di ko yi bu baax ci liggéey bi nga xamante ni def na ko. jërëjëf. Euh, kontaan nañu wax dëgg yàlla ci li muy def. Mhm. waaye nag euh, alo waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaye nag ñu ngi nit matul lu li mu wax dégg nañ ko dégg nañu budget bi dégg nañu réalisation yi mais su doon suñu sago wax dëgg yàlla dina gën a mën a jage population bi. Ah. ñu mën a jege population bi c'est-à-dire parce que nee na day dem Dakar Dakar fa la di jóge mhm. mais population bi fi nekk bi leen dul jege du xam exactement mhm. li nga xamante ni mooy jafe-jafe ñu nekk ci gox parce que li muy nekk à l'extérieur moo ëpp fuuf li muy nekk fii ci dëkk bi wàllu réalisation yi am na mais li des moo ëpp fuuf lépp luñ ci def li ci des moo ëpp fuuf surtout Richard Toll Kër Momar Sarr bi nga xamante ni moom mooy jël émergence mbaan bi ñuy wax donc boobu noonu ñoom war nañ ci mën a gën a góor góorgóorlu gën ci taxaw mhm. parce que infrastructure sur le plan routier wàllu désenclavement dafa def ñu manqué trop liy génn ci gox bi ci wàllu tool yi ci wàllu liggéey bi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy liggéey fii nii te mu ñu ko yóbbu Dakar di ko jaay foofu ñàkk infrastructure ñàkk tali yu baax moo tax loolu noonu def ñu problème donc piste bu ñu mën a goudronné de Richard Toll ak Kër Momar saar loolu parce que moom mooy suñu jaxañ-jaxañ numéro un sur le plan santé wax na ko léegi poste santé yi ñu ngi mais su roon suñu sago mbaan am centre de santé parce que population mbaan ni mu toll ak commune mbaan plus de 70 kilomètres nekk presque plus de cent et cinquante nangam village donc commune bi nekkul commune ba nga xamante ni benn nit euh, amaana moom mi ngi ciy góorgóorlu di ko gérer au maximum mais lu mu néew néew néew néew war na mën a gën a am taxawaay parce que commune bi yaatu na donc sur le plan santé waroon nañu mën a xool moom nu mu gën a taxaw parce que bu ne jege na gouvernement bi ñu toog fexe taxaw ak ministre yi ba commune Mbane mën am ay piste bu ñu goudronné ba nga xamante ni. Mhm. képp ku fi bëgg dugg di accès dina yomb. Mhm. mais duggu commune Mbane ak dugg jaaxal na ma parce que dafa metti dafa mhm. metti trop amul piste yu wóor amul dara ndox mi ñu fi am si le plan ndox. ndox mi bien vrai am nañu ay ay ay usine ndox yu fi nekk ñi nga xam ne ñu produire ndox mais ndox mi doyul ndox mi sellul ndox mi cher na donc loolu bu doon suñu sago wax moom. ñu ñu may rek ñi nekk si ginnaaw itam mën a daal di dugg euh, bokk ci émission bi di la gërëm euh, di la sant bu baax a baax mbokk mi alors monsieur le maire dégg nga ko nee na ci wàllum jegewaayu askan wi euh, maanaam donc da nga war a mën a tamit tey gën a mën a jege askan wi junj nga ko sànq nee nga. projet yi dakaar la nekk nga koy jël di yóbbu mbaan est-ce que tey lu mu la wax itam mën nga ci loo ci mën a tontu. waaw léegi euh, xam nga man. Mhm. ñàkkuma ji jege sama ay population. Ah, jege nga leen. man jege naa sama population. ndax yaakaar naa wax naa la. Mhm. amul benn jour bi nga xam ne mhm. tardel naa. benn signature si biir mbaan. di yaakaar naa foofu. bi mu ñëwee foofu abe léegi. sama la ko si kaw gisuñu ma si ay yenn détails yi. gisuñu ma si ay càmbali càmbali walla jaay suuf. walla def nii wala jéem a nangam ak nangam. te xam nañu. alhamdulilah alamin lan laa capable de fan fi ma joge woon di ñëw foofu mhm. xam na ni amoon na fi ma jóge woon di ñëw foofu man li ma indi woon mbaan indi wu ma mbaan pour dundu si mbaan dama mhm. ñëwoon pour bëggoon dundal mbaan mhm. euh, de li mu li wax di naa si lool euh, ndax euh, fekkee ne goudron bi nga xam ne Richard Toll Euh, Kër Momar Sarr mhm. yaakaar nañu gis nañu nit yi mhm. ñëw nañu foofu waxtaan nañu ak seen village mbaan mhm. waxtaan nañu ak foofu ay programme yi nga xam ne maanaam maa nga dog dalal nga mun nga dalal seen xel mun naa dalal seen xel te kat yaakaar na même moom di wax ni yaakaar na loolu réerewul mbir maa ngi si gannaaw moom ah, yaakaar naa woote nii xam na ni loolu yaakaar naa képp ku du nekk doomu mbaan diggante Godron Richard Toll Kër Momar Euh, fima ma si takaw mhm. ndax gamu bi doon def foofu am benn soc mhm. bi nga xam ne ñu amoon ko foofu mhm. jour boobu gamu bi bu mu passé trois jours si la jàkkaarloo ak président ma expliqué ko mu woote sta boobu ñii doon yor asrut ñi doon yor godron yi ñu mu boolem ak ñoom ma dem ñooñu déglu ma wax leen ne carrément fi catastrophe li nekk foofu il faut ñu nekk ko am ñiy délégation sax ñu ñëwoon ñu indil ma benn euh, latrine nee ni dañu ko bëgg teekaat foofu man maa bañ yaa ngi dégg mm-hmm. ba mu delluwaat projet boobu delluwaat si ñoom mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ñu jël mbokk moom ci ligne bi rek bismillah salaamaaleykum ah, sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax maa ngi tur bi ak foo nuy woowee maa ngi lay woowee Mbane Matar Sarr tey village Mbane. waaw bisimilah tey lan lañ mën a jàpp tey ci commune Mbane monsieur le maire mi ngi ni toog di la déglu. waaw bu njëkk bu ma ko nuyoo pare sorgal ko. Mhm. waaw di la wax ni li eh, ma ko waxee rek. Mhm. waaw bu dee fii au niveau de Mbane moom. Mhm. village Mbane. waaw. waaw li mu wax nii moom def na ko Mbane vraiment tool nga ne dégguma yëkkatil baat bi. ma ne li mu wax nii ko fii si biir village Mbane village. waaw. waaw vraiment loolu def na ko. waaw ah, bu dee stade. moo ko jëkk tabax fii ci commune Mbao. sunu dispensaire pour centre bi ñu koy réfectionné. allo. waaw maa lay dégg maa lay dégg. dañ koy def réfectionné lépp lu fay drap ak matelas moom moom moo ko jëm. suñu jàkka ji ni biñ koy tabax noonu ñu di tabax pareegul. moo si diwoon cinq cent mille pour pour pour première euh, phase. ak yeneen ak yeneen yi nga xam ni maire bi foofu mooy mosu démb def na ko fii si village village Ndane nag laa wax. Mhm. waaw koo daan loolu laa mën si daal si témoin ngay xam ni comme yàlla def na loolu defal nañu ko li si ëpp sama loxo la jaar. Mhm. jaaru na bu toogee foofu ma témoin la àddina bi ñu woon ni lii moom maire def na ko fii si Ndane ak yeneen yi ngay xam ni même gàmm gu mujj gi un million la la la dimbalee waa Ndane si gàmm. Ndane mhm. waaw kon jaadu na kon bu tegee foofu te loolu jaar sama kanam mu may woo di ma wax ak responsable di leen ma am na solo am na solo mhm. mbokk yi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax kon donc dinañ la may après ab waxtu euh, bu ñuy jeexal nga gërëm waa mbaan yëpp tey mu ngi ko doon wax am na ay jafe yoo xam ne tey taxaw nga ci euh, donc euh, yaa ngi doon wax mbaan mi ngi ci yoon émergence tey est-ce que monsieur le maire dafay nekkaat candidat ci élection yi ñu dëgmal waaw léegi euh, alhamdu rabbil alamin nañu yàlla yóbbu foofu si jàmm mhm. ndax des na euh, de li si nekk mhm. diggante fi ak loolu dafa kaw bari mhm. donc loolu suñu boroom moom moo ko kam ndax euh, mënuma la wax suba damay dem fale te waxuma la incha allah si yaakaar naa li ma yéene mbaan ak fi ma bëgg yóbbu mbaan seguma liggéeyal mbaan jéego yi ma war a teg si biir Sénégal ñaan naa sama borom mu baxe ma fii baxe ma ak sama ker ndax bu ma ñëwee foofu ñëw ma woon foofu ak xam-xam ñëw ma foofu ak njàng isi ñëw naa foofu ak ambition ñëw naa foofu bëgg foofu def dara bëgg jël mbaan fii ma yóbbu ko fi euh, te alhamdulilah rabbil alamin lépp li nga xam ne commencé nañu ki jotoon wax sànq am na lu ñu def si dafa des lu bare bare bare bare dafa def te lii des lii nag li ñu li tënk tey ñu indi ko comme ay réalisation des des de milliards du ay du ay caakaan ay milliards la ñu duggal mbaan si bi ñu toogee ak léegi mhm. def naa ko si kayit mhm. def naa si ki mhm. képp ki nga xam ne soxla na programme mbaan mun naa ko boole ak samay secrétaire lan la ñu liggéey si mbaan bi ñu ñëwee mun na la mooy kale yi tey bëgg kam lan mooy mbaan wala lan mooy réaliser mbaan xam naa loolu ke jul si rajo nag li ma la jox nii si teere laa indil fi ay phase yi nga xam ne mun na leen liir di yooyu yëpp dañu ko def donc ke jul si émission man li ma leen bëgg ko wax rek mhm. comme lépp li ñu ay problème goudron bi maa ngi si mhm. guddi mhm. maa ngi si bëccëg am na programme fi nga xam ne foo ñu ma waxoon foofu lañ nekk buñ jógee foofu mbaan la ñu ñëw directement yaa ngi dégg gis nañu équipe bi nga xam ne am na ay jéego yoo xam ne yaa am na ay def naa ko ba waa mbaan kat gis nañu seet euh, village bi doon wax léegi moom mooy seet village mbaan yaakaar na am na ñi nga xam ne rencontré nañu ko godron bi ak affaire bi ak seen programme ak affaire yooyu yëpp yaa ngi dégg donc loolu alham rabbin alamin hmm. donc euh, defuñu dara ñu dalal seen xel pour dalal seen xel rek hmm. nun néglige moom waa mbaan hmm. voilà nekk si àll nelew si àll takul defar dëkk bi dikk si dëkk bi defar dëkk bi moo gën ma nekk foofu di def tambambaalu di nangam nangam di fekk euh, mënuñ lijjanti dara dara mënul ñëw kadi loolu yaakaar naa du loolu ta moo takku ñu tànnaam alors léegi monsieur le maire dañuy waxtaanee ci actualité bi gis nañ fi li fi xewoon yëpp fan yii xët xët ak jàppante yu métti yi ba ñu ci bari rek euh, faatu si seen bakkan rot si njiitu réew mi def message boo xam ne ngir mën a dalal xel yi li jëm ci wàllum emploi yaa ngi ko doon junj sànq nga ni yaa ngi jëm ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum emploi tey naka nga gisee discours njiitu réew mi ba dal mën a amandi ci jàppandalu ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, chef religieux yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci médiation yi ba jàmm mën a am tey fii ci diwaanu Sénégal aw léegi kam nga nun dañu habitué bu fekkee kilifa wax nga xam wax na mm-hmm. kenn dootul wakkati mm-hmm. en tant que président réew mm-hmm. moom moo wax euh, dégg kàcc mu ngi yëngal geenam lu paase nañ ko ba donc loolu yàlla indi woon na mu nekk kew kew nekk mis musiba bi nga xam ne yéen wuñu ko doomu sénégalais woon la yéen wuñu ko si suñu réew mi mhm. demoon na ba yàlla def na indi woon na kanam bi nga xam ne ñëwoon na fii di daawuñu ko woon kam mhm. euh, yàlla tuur na si ay ndoko bu sedd kilifa wax na mhm. président wax na de wax bi mu wax dégguma ñu ngi koy contesté yaakaar naa wakam euh, moom mooy waku ñëpp ndax euh, sikkin ak kaan am mhm. gëstu rek moo koy yóbbaale mhm. si yaa ngi dégg li ma la wax mhm. lépp lu mu li dal sikkin si si ku gëstu moo ko ko indi si sikkin moom amul benn kii nun tey yow rafetlu nga ay rafetlu kaddu njiitu réew mi surtout bu mu wax ne appuyer bi nga xam ne dina ko mën a appuyer jeunesse man li ma bëgg rek mooy jeunesse yi nañu tiit mhm. ñu xam ne carrément li ñu leen indil ñoom ñoo koy mën a liggéey mhm. boo fekkee ne indil nañu leen ay financement mhm. ñu paacoo ko ñu liggéey wala ñu takk si jabar wala jënd si ay lal reposé ñu ñu jàkkaan si Sénégal du avancé ndax ndimbal bi ñu leen indil ak financement bi ñu leen indil na ñu leen fekk si kaw naak bi fekk fekk ñu takku takaw boo fekkee ne indi na projet boobu wala indi na pour li muy jàppale euh, jeunesse yi ak yooyu fekk ñu kam Mhm. lan moo tax ñu ngi leen koy jàppale mhm. ngir costuré Sénégal ngir defar Sénégal mhm. ngir Sénégal jàmm moom moo tax ñu ngi koy def léegi ci wàll woowu tey euh, juj ak liñ fi junj biir mbaan réalisation yi def nga ko fa euh, ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàll wi tey gis nañ ni yaa ngi ne mbaan mi ngi ci yoonu émergence kon donc su ma la déggee mbaan am na fu nga ko jëlee woon am na fu nga ko yóbbu tey euh, boo jàppoon ni tey li nga liggéey ci mbaan yëpp tey am na loo xam ne lan moo gën a jàmp tey pour ñu def ko foofu lan la. mooy ndokk ak raccordement ndokk yi comme li mu wax sànq. Mhm. réseau am na benn réseau bu nekk foofu. Sen'Eau li muy liggéey ak population bi ak li mu leen jaayee. ndox ndox bi dafa seer ndax am na ay robinet yu bare ñu ngi foofu tij yaa ngi xeex ñu wàññi ko ñoo ngi keeg ñu wàññi ko hmm. dëkkat yi aussi dafa nekk euh, beneen programme la bi nga xam ne yàlla rek moo ko am ne kooku du mun a du ma ko mën a wax si rajo hmm. yaa ngi dégg hmm. ndax sama diggante ak ñoom yaakaar naa du du lu ñuy wax si rajo et si ñëpp am na ay wàmbaan yi seed sama diggante ak sewo dipp bi ñuy commencé ñëw foofu yaa ngi dégg euh, de li ma leen waxoon yaakaar naa loolu moom mooy wéy ba tey ndax bi ñu ñëwee foofu nee ne dañu bëgg jël Euh, ko si lokk ñi nekkoon foofu ñoom ñu kondir ko am na li ma leen waxoon ak samay conseil mhm. yaakaar naa ñoom ñëpp tey li ma leen waxoon euh, am na li ñu si gis mhm. euh, affaire ndok nag dafa mhm. lekk li nga xam ne ki la koy may doo kuloo ak moom ki la koy may doo coow ak moom ndax ba fekkee da ngay nakante voilà donc mbaan problème am bu gën a jàmp tey mooy ndok forage yi ñëw nañu recordement yi des na Euh, am na ay forage yi nga xam ne des nañu am na ay dëkk yi nga xam ne burki démb laa yóbbu quatorze kilomètres mhm. tiwo mhm. xam nga quatorze kilomètres tiwo aller retour vingt quatre kilomètres foofu kay forage moo war foofu takaw du tiwo mhm. yaa ngi dégg te foofu kay ay mu polariser ay village yu bare ay tiwo yu bare war génn foofu donc nun suñu ay bitse suñu ay moyens yaakaar naa bu ñu defee santé éducation euh, nu mu tudd nun amatuñu yaa ngi dégg ndax mhm. ñu ngi organiser suñu ay tool yi mhm. képp ki nga xam ne yaa ngi doon yëngu foofu daañu la jàppale mhm. képp ki nga xam ne nekk nga doomu baan war nga tekki incha allah daañu la takaw incha allah kadi maa ngi leen dowal pour ñu nekk ay jeune cadre bëgg na ay cadre ndax mbaa mbaan dañu jàng am na ay juriste am na loo indi foofu. ñu ngi fa am na am na ku nekk. Mhm. foofu ki nga xam ne mun na la ko yoral. Ah, ok voilà léegi monsieur le maire émission bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu mban ñu ngi lay déglu ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ak ñoom. Euh, lu njëkk yëpp. Mhm. sant Gog. Mhm. rajo bi nu mu tudd. Réew mi FM Réew mi FM. vraiment maa ngi leen sant di leen gërëm. man bariwuma li may nangu ay invitation am na solo ñu rafetlu ko nit ñi ko nangulee euh, mhm. bu fekkee nag euh, duma nit ki nga xam ne man mun naa liggéey si mun na am wàkk bi mhm. yàlla ni ma ko buggee dem mhm. koy ragal maa ngi sant ay euh, kale yi nga xam ne ñu ngi nekk mbaan ubbi foofu kawma panel kawma panel mbaan nag ñu ngi may invité chaque jour pour mu dugg si rajo bi wax si si musuma ki wax du dara nag ndax bëgguma juum mhm. bëggum man liggéey laa kam man li may lijjanti ma tekk rek mu ñu kam dimbil di lii ñëw na mhm. wala gouvernement indi nangam wala mhm. defar naa nangam indi naa nangam et si bu doon sama sago lépp li nga xam ne nit yi def nañu ko si biir mbaan ma bokk ak ak ñoom Euh, maa ngi leen sant di leen gërëm di mbaan am na ambition mm-hmm. de tey si tey si tey mbaan ñu ngi bëgg defaral seen bopp seen bopp li ñu moom moomal seen bopp mm-hmm. mbaan yëpp a maase chef de mm-hmm. village yëpp a maase dajale nee ne dañu bëgg yor seen société bopp pour ñu mun a liggéeyal seen bopp ñu mun contrôler seen bopp ñu mun tegal seen bopp seen commune si fi ñu ko war a teg gouvernement bu fekkee ne mu ngi lay yóbbaale nañu lu fekk si kow yoon bi mbaan takaw nañu si kaw yoon bi li président bëgg financé kaale yi mbaan dekk nañ ko loko mhm. euh, de allah ñu ngi si dog ñu ngi si waxtaane mhm. de allah fan yu néew mhm. daañu delluwaat fii ñu def benn programme bu gën a euh, am solo am solo ak suñu programme jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax itam di la gërëm xanaa ñu jël mbokk moom rek xam naa moom mooy mujj ci émission bi ñu jël ko salaamaaleykum waaw ñu ngi sant xëy na émission bi ñaari minute moo ci des ñu bàyyi la nga nuyu ak sa mère nga tàggatoo ak moom. waaw d'accord man maa ngi tudd Pape Madické Wade. Pape Madické Wade. Uh-huh. Ah, maa ngi koy nuyu di ko ziar. Uh-huh. di la ziar yow moom wat uh-huh. donc euh, di wax rek sama xalaat par rapport ak euh, interview bi nga xam moom lay def en direct. donc euh, man au niveau de la commune de Mbal man maa fi yor mutuelle de santé bi. Ah, donc ci côté boobu. li mu ci mën a wax mooy euh, deux mille dix neuf ak deux mille vingt yëpp. Mhm. vraiment jàppale na mutuelle de santé bi. Mhm. ndax euh, deux mille dix neuf je pense que jàppale na aussi une valeur de sept cent mille. Mhm. ñoo xam ne enrôlé na ay nit ñoo xam ne dugal na leen ci mutuelle de santé bi. donc en deux mille vingt également dugaloon na joxoon na que mutuelle santé bi mu enrôlé ay nit. donc ci côté boobu ñu ngi ci gërëm di ko sant. à part comme ni nga ko waxee liggéey donc euh, dañuy indi suñu ay euh, suggestion par rapport ak li suñu kanam. Mhm. pour que liggéey bi mu gën a dox. Mhm. Euh, mooy benn bi may gën a wax mooy ci côté Sénégal. Mhm. moom foofu gars yi fay liggéey souvent ay saisonniers lañu dañuy liggéey trois mois ou bien six mois gars yi arrêté leen. suñ leen arrêté ñu si ñëwaat leen beneen contrat bu nga xam ni jamais au grand jamais duñ leen def ñoo xam ne dañu nekk ay ay je ne sais pas ay employés direct donc ci côté boobu daal bëggoon naa ñoom ñu jéem def les tous les moyens possibles pour que ñu mën a xool jeunesse bi nga xam ñu ngi liggéey ñu mën leen jël douze mois sur douze ñu mën leen jël ñuy liggéey foofu ak lépp li nga xam la ñu mën leen ko jox ndax su loolu amul rek mhm. donc euh, xam nga lu ci nekk mhm. nit ki bu fekkee boo xëyee ñu fay la boo xëyul kenn du la fay mhm. loolu da ngay rebuta jërëjëf jërëjëf xam li nga waxtaan bi gàttal mais soo mayee rek ma yokk si ñeneen deux points mooy euh, ci côté également ci côté yoon bi parce que gars yi insisté mais boo jógee Ndiakhare jëm jëm commune de Sèye foofu. Mhm. non foofu ni ko ni ko gardien yàq dafa ëpp. Mhm. donc indien yi bu fekkee ni ñoom au moins defaruñu sax liñ fi fekkoon ci tali war nañ au moins di ko gratter waat un peu pour éviter les accidents ak yu mel noonu. Mhm. Euh, à part commune bi wax dëgg yàlla une commune euh, comme ni ñu koy waxee. Euh, vraiment bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey à part de Richard Toll loolu comme li président waxoon rek ay affaire caaxaan la mënut a nekk. une sous à Richard Toll une mairie à Richard jamais au plus grand jamais man dóomu développement dina mën a am. donc fii comme ni ko maire waxee. actuellement y a la gendarmerie bi nekk fii donc suñ fi indee actuellement. tout ce qui est état civil ak tout ce dossier. Mhm. yooyu suñ ko indee en bas mais y a la sécurité. mais nit ki bu fekkee da nga bëgg benn extrait bu deux cent cinquante francs il te faut nga nga débourser dem Bichaato et c' pas sûr que ki nga fekk loolu mënut a ànd ak développement kon damay gàttal rek ndax xam naa ne comme temps bi ci def bëgguma jël lépp ma bàyyi ko mu continuer mais daal xam naa ni mhm. même su fekkee y' a des réalisations y' a beaucoup de manquements yu nga xam ni mhm. vraiment daal euh, bu ci liggéey bu ci liggéeyul trop trop trop trop commune bi pour mu mën a dem émergence bi ñu doon wax sànq dina dina jafe trop jërëjëf ñu ngi donc ñu ngi lay sant bu baax itam di la gërëm kon donc monsieur le maire gis nga ni temps bi xoj nañu euh, doléance waa Mbaan am na li nga ci jot wax ñoom itam dégg nañ la donc ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax maa ngi leen sant di leen gërëm kat di ñaanal leen yàlla yàggal rajo bi yokku jërëjëf euh, télé am fii lépp li nga ngeen a organe euh, presse yëpp ngeen am ko mm-hmm. Euh, li si des li nag euh, comme li ñu may wax yëpp mhm. incha allah loolu danaa si bàyyi xel seet nag lañ koy solution mhm. bi nga xam ne nun daal mbaan buus lañ soxla mhm. mbaan dem si kanam loolu lañ soxla